Il y a beaucoup de zones où on n'existe pas où vraiment on a un électorat très faible moo faut le dire du ma ñëw fii di malgré tout nga dem allongé liste bi. candidats 93 yu sur les 21 est-ce que du genre yu mel ni yow nii yéen yéen ñoo ko doon parce que j'ai passé par toutes les élections j'ai au moins 16 conseillers j'ai euh, gagné mes bureaux de vote sur les trois communes yu ma dem maa deuxième sur deux communes am na am ñoo xam benn conseil municipal te ils sont candidats aujourd'hui donc ñun maa ngi ëpp crédibilité plein électorat te malheureusement ils sont partis. kon yow tey même bu ñu reporté woon élection yi doo si bokkaat bu ñu organiser dans six mois dans deux ans si ces 21 là passent mhm. ils sont pas un meilleur programme ils n'ont pas un électorat plus élevé que moi mhm. mais nag s'il y a d'autres personnes qui passent que wax naa tuddi mooy Ousmane Sonko wala Khalifa Sall wala comment c'est quoi le nom encore Karim Wade mhm. mais je préfère ñooñu dem Sénégal si ñoom yow si ñooñu day am si koy dem bootu ji. non pas forcément boo bootu si kenn mais dama ne nii foofu la sénégalais ñi xaare d'accord je préfère que tey sénégalais boo laaj. il préfère tey Sonko bokk Karim Wade bokk Khalifa bokk Idi ak benn candidat bokk que d'avoir vingt et un personnes. ça tout monde est d'accord sur ça. donc comme loolu la yi bëgg nañu bàyyi ñooñu dem. les sénégalais veulent aller à l'élection oh. présidentielle <laughs> monsieur Thiaw. avec les avec les candidats de l'opposition les Sénégalais se sont battus 12 ans avec ce régime. je peux te poser ñu dem élection. Hmm. ak Ousmane Sonko. wala Diomaye Faye moo si gën a. le débat n'est pas à ce niveau. non je pose la question. non li ñu gënoon mooy nañ dem élection. <laughs> le débat n'est pas aujourd'hui ce n'est pas déjà non dama jox. Ah. c'est-à-dire que aujourd'hui moi je trouve la communication stratégiquement. par rapport même à votre honneur je trouve indécent cette question je la trouve indécente xam nga man mën naa toog sénégalais ma ne mais attends il cherche quoi en parlant ainsi de Diomaye et Sonko c'est quoi l'objectif la chose qui compte aujourd'hui le débat pourquoi on est là c'est il y a une élection qui risque d'être reportée te si yoon moi je veux que vous me parliez du principe de ndax tegu na ci yoon ou pas est-ce que sur le plan constitutionnel cet État-là ou ce régime-là ou ces gens-là qui parlent de report respectent la norme constitutionnelle est-ce que ce principe-là moi vous l'auriez défendu dinaa mën a accordé wu ak yow c'est ma position mais contexte bi fi ñu toll nii vous entendre parler ainsi il y a aucun Sénégalais c'est vrai que moi boo ma laajee ma ne la Ousmane Sonko dafa war a bokk. Mhm. c'est c'est dafa war a bokk mooy li war a nekk. Mhm. maintenant ce régime-là nous a mis dans un guêpier. les Sénégalais disent ok amul problème jusqu'ici parce que à un moment donné d'aucuns pensaient que bu ñu nee son Sonko du bokk dëkk bi tàkk peut-être. Mm. les Sénégalais sont restés stoïques et dignes en se disant amul problème comme Diomaye bokk na graawul ci biir graawul bi maintenant on cherche quoi. vous voulez quoi les gens veulent quoi léegi ñu ne leen bon ok parce que ce qui va se passer c'est quoi la liste des suppléants qui avaient pris la marche et rendu la vie difficile à ce régime-là à mais c'est la même suppléance qui va être là c'est-à-dire que d'accord xeex nga benn nit mais son remplaçant mu ngi la mu la mu ngi la mu ngi la acculé mu ngi la tiital mu ngi créer benn tension ci sa côté boo xam ni tu es perdu ne ok je vais trouver une solution encore une fois de plus mais les gens sont fatigués monsieur Thiaw. non je suis d'accord les gens sont fatigués. et malheureusement les Sénégalais la majeure partie ñu ngi kaa dégg ci rajo yi ci télé yi ñu ngi kaa lire partout dans les réseaux les gens veulent xam lu ñu bëgg Sénégalais se débarrasser de ce régime ah, là ce qui va se passer. incha je pense que ce qu'on est en train de faire mooy lu may wax tout le temps dañuy folli du ñu fal. c'est ça qu'on essaie de faire. Hmm. parce que instant yi ñoom on n'est pas ici de voir de voir le meilleur profil le meilleur candidat le meilleur programme malheureusement dëkk noonu la ñuy tànnee ñun instant fu ñu toll mooy nañu dem rek. même si on a quelque chose de mauvais grave. mais monsieur Thiaw parce que. parce qui nous ont fait très mal donc aujourd'hui ce qui se passe mhm. mooy daanu soppi ba keroog ñu am bu baax bi incha allah foofu euh, laay waxee xam nga euh, ce qui va se passer l'histoire risque de se répéter parce que l'histoire risque de se répéter d'une telle manière parce que ñun lu ñuy casser certaines choses qui nous arrangent parce que quand j'entends ce discours man ça me fait un peu rire toi ça me fait rire parce qu'il y a quelques mois quand l'opposition disait que nous on n'allait pas respecter les textes de loi parce que aujourd'hui su ne ni le euh, le préfet wala le gouverneur euh, peut nous empêcher de marcher on va pas l'écouter avec ou sans autorisation avec ou on va le faire hmm. donc à un moment on dit on fait on te ñu ne on doit jamais désobéir donc c'est un discours yoo xam ne c'est contradictoire selon ce qui nous arrange man je me dis